am gu mag a mag uh, di dalal ci plateau bi uh, kii di uh, Birane Niang di secretaire général bu ODCAV bu Thiès di am mbégte tamit di dalal maître Ousmane Diagne di président d' ASC ñu dalal ko fii ci plateau bi moom nag ASM faral na di jël raay yu bëri fii ci euh, Thiès dinañu waxtaanee comme ni ngeen ko xamee euh, ci mbir mi nga xam ne moom moo lëmbe jamono te ñu nekk nag ci période boo xam ne ci la nawetaan yi daan euh, commencé dinañ ci seq waxtaan ma am mbégte di ci ànd ak toujours ak sama consultant xalifa Fall xalifa maa ngi lay nuyu. waaw maa fay Fallou di kontaan ci dara invita invité yi nga yi nga am te invité de marque d'ailleurs yoo xam ni vraiment waxtaan bi dina war a neex ni sax yaakaare woon euh, di kontaan aussi ci présentation bi bi nga xamni mom moom la caméraman def euh, di la nuyu di la sant. jërëjëf euh, Khalifa Fall Birane ñan secrétaire général ODCAV bu Thiès ma am mbégte bu mag di la dalal ci prestige maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay grand di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp di ci jiital grand Khalifa Fall. di ci teg aussi président Ousmane Diagne donte ñoom ñaar ñëpp seen sant yi ñoo xaw a doy waar rek sant yi daal vraiment moom moo ci xaw a doy waar waaye tur yi moom am na solo lool waaw yi am na solo loolu aussi buñ ko defee ba noppi xëy na bala ñuy dugg ci ci ci waxtaan wi di indi njaalu ODCAV bu Thiès di ko teg ci président ORCAV ak président zone cinq a bi nga xamante ni démb am na benn sociétaire ASC Ciment boo xam ni yàlla dafa dogal ni bi taw bi pare ci biir taw bi dënn yi doon loolu benn da ko ci foudroyé ba mu ñàkk ci bakkanam di ñaan sunu borom mi nga xam ni moo yor njéggal yàlla jéggal ko euh, te xaare ko àjjana di jàll famille bi yëpp di jàll l'ASC def l'ASC Ciment ak euh, la zone 5A de l'ODCAV de Thiès. très bien ñuy euh, nangu jaal bi ci jaale tamit euh, tout le mouvement associatif di am dalal maître Ousmane Diagne président man nak sama joueur la toujours mo wax ko moom mu bañ parce que dañuy dajé fenn té xamna né tank baangi neex bu légui. maître ma ngi lay nuyu. Ma ngi lay fay grand Fallou di contane bu baax ci invitation bi surtout mo ñëw fekk fi mon frère Birane Niang. Euh, fekk fi aussi suma coach Khalifa di nuyu wa Thiès Prestige yep à travers le président euh, Pape Doumbia mou aussi suma xarit nek nit ku baax euh, di aw rek fi Birane aw parce que di tout le monde sportif thiessois particulièrement l'ORCAV l'ODECAV la zone 5 ak l'ASC Silma nga xamanteni leur capitaine Dembou yalla dafa def la foudre l'a emporté durant la pluie mu nekk un événement euh, tragique mm. donc ñu leen koy jallale di leen masa coono mm. parce que je crois que euh, le capitaine la nekkoon l'un des plus grands espoirs du football thiessois donc bu ko fi yalla jëlee loolu dafay nekk loo xamante ni rek lu metti la mm. donc ñu koy jallé ñep di ko jall wa famille am di leen wax masa coono et puis di leen ñaanal fi yalla fété leen fi mu leen waroon fété et di ñaan aussi yalla xare ko àjjana amin euh, et que tout le groupe Prestige du jaar fi ngeen jaar di ko euh, la famille de Silman euh, mais aussi le monde sportif di ko ko jaale bu baax a baax di ñaan gone googu yàlla xare ko àjjana ya Firdawsi te yàlla buñ ko déggaat ay ati ati at ndax nag mbir mu la moo xam ni nga ko c'est un événement douloureux wante sunu borom moom mu bëggee ku bëgg da ngay jërëjëf ci noonu la ñuy duggee ci biir émission bi dama koy dooree ak yow Birane secrétaire général de l'ODCAV jamono ji ñuy ñuy wax ni euh, en temps de paix situation normale nit ñaa ngi ci terrain yi di football ren nag euh, pandémie bi di Covid 19 ñëw moom ni ma koy waxee dàq ñëpp génn leen ci terrain yi ranger sifflet yi ranger ballon yi yeen wa nawetaan tamit yéen a ngi doon gisee lan ngeen tënk fi mu nekk ni ci période bi situation exceptionnelle mesure exceptionnelle qu'est-ce que vous avez prévu comme ni nga ko waxee euh, peut-être pour rectifier la un peu jamono ji daf ñu doon fekk aussi ci acte administratif yi pas ci terrain yi parce que statutairement suñu ay activités da daan démarrer chaque le 15 juin pour réaffiliation démission les actes administratifs donc doon le 31 juillet de chaque année on est aujourd'hui le 20 juillet donc ça daan que ñuy euh, activité administrative mais comme Massmi aussi bi mu a une situation exceptionnelle il faut des mesures aussi exceptionnelles avant ben ASC di djem dara l'ONCAV s'est réuni en bureau d'abord pour djema xol ça c'était le 12 juin pour voir la situation ndax dañuy démarrer les actes administratifs dans un premier temps nous génne à la date du 13 juin Ben correspondance envoyé à l'ensemble des ORCAV pour nous voir ko ci base ci ODCAV bi ci zone yi ba mu yegg ci wax ke acte administratif yi doon am dàqandi nañ ko ba jëmmi jamono ci loolu aussi ci la ñu le 5 ñu woote benn le 5 juillet passé ak Kaolack ñu woote benn assemblée générale extraordinaire boo xam ni lañ ko def pendant 3 jours le du 3 au 5 lañ ko def foofu ak Kaolack pour waxtaanaat ci coppite yi am ndax innovation yi nga xam ne dañ ko war a indiwaat ci nawetaanu ren yi loolu moom moo waraloon plus apprécier waale situation bi nga xamante ni am na muy mbas mi nga xamante ni mu lëmbe àdduna lëmbe Sénégal biñ ci waxtaanee aussi li ñu jàpp mooy dañu bokk d'abord parce que le nawetaan est reconnu d'utilité publique par l'État du Sénégal depuis 1996 donc tey mënuñu dem mënuñu dem à contre-courant ak li nga xamni mom la état bi teural d'abord ñun le football est un amul ñaar donc nous nous appartenons au football et nous sommes euh, euh, Ben patch ci fédération sénégalaise de football ñoñu bi ñu waxtaanee aussi ñu jàpp ni ci nga protocole sanitaire yi ñu joxe jafe na trop pour ab équipe mën ko respecter loolu moom moo ñu demander à ce que compétition mais ñun comme on s'est dit que tollooguñu ci fu ñu war a mën ni parti football bi du am parce que ñu ngi ci ay acte administratif période boobu on a dit que ce qui est de réaffiliation affiliation lolo, jotewul ak dara la partie football parce que suñu ay règlement dafa wax ni nit boo vous ni da nga ci dara da ngay sa bokk at mu jot kon ci lettre envoyé ko à partir du 20 le 30 août am nous délai fait xam ni may nañ ko pour ñu feddaliwaat seen mbokk ci structure bi pour mën nous ni ñoom kat ren ji ci ay activités dañ sous les l'ONCAV des et des en passant par les zones loolu su amee nous def ko ba noppi suñu yeggee ci cëppaandaw ga mois de septembre danañu toog apprécier waat comme ni ko fédération defee bi mu loolu xam courbe maladie bi fan la toll ndax yokku na wala ndax day diminuer wala ndax protocole sanitaire bi ñu wax évoluer na pour ñun ñu mën ci organiser sunu ay activité su fekkente ni nag dem nañu ba yegg ca cëppaandaw ga su boobaa incha allah danañu joyal xibaar yi wax ko ñi nga xamante ni ñoom lañ ko war a wax muy ASC yi ñoom ñu jël seeni responsabilité par rapport ak pandémie bi très bien euh, ci ni ñu jàngatale defe naa ne campé nga bu baax ci yi nga xam yépp war nañ ci war nañ ci waxtaan euh, mais fi nga mujjee euh, falaay falaay doore pour dugal maître Diagne mooy ngeen Dok ko wax ASC kon ASC yi ñoom yéen da ngeen a rek tamit di di xaar fi mu nekk nii ci lan ngeen jëm alors que yéen ci seen structure seeni membre mooy ASC mhm. ASC ñooy seeni membre seen membre yooyu ñu ngi toog di leen déglu yéen en tant que membre président ci lu ngeen nekk association sportive culturelle yi nga xam ne yéen a nekk ci quartier yi ci lu ngeen nekk fi ngeen nekk. bon jërëjëf euh, Fallou euh, je crois que euh, xam nga nawetaan ni muy ni muy doxee mooy li Birane wax léegi chaque année boo bokkee ci dara mais euh, ci la ñu bokk ñun ci euh, démembrement de l'ONCAV mais chaque année dañuy def lu ñuy wax euh, affiliation réaffiliation donc pour ñu mën a beesalaat ni yëgluwaat ni yow ci li nga nekkoon ba tey yaa ngi continuer di ci di ci nekk comme ni ko Birane waxee heure bi ci yooyu lañ daan fekk ñu ñu nekk ci secrétariat général bi nekk di def procédure affiliation réaffiliation ñi nga xamante ni comme ASC les techniciens ñu ngi ci euh, supervision jéem a recrutement joueur ci yooyu lañ mais comme nous l'avons tous constaté il y a une situation exceptionnelle qui est là muy la pandémie du Covid 19. c'est vrai le nawetaan est une activité d'utilité publique euh, c'est un euh, le football est un sport mais un sport de loisir c'est-à-dire que nous, bu ñuy football bu ñu nekk ci nawetaan bi ci plaisir mais je crois que par rapport à la situation bu nous dund ñu gis ravage pandémie bi di surtout ces derniers jours-ci parce que euh, la courbe s'est complètement renversée c'est-à-dire que bi nit ñi di mesures yi di gën a sonn di xeex ak pandémie bi li am tey amul parce que exceptionnellement nous avons eu un mort mais actuellement il il se passe pas une journée sans pour autant que nous dégg 4 3 morts et 35 à 40 personnes y aura dans des situations extrêmement graves sont en réanimation donc au vu de toutes ces conditions là bon man pour euh, euh, cette année-ci, pour que euh, le Naitan, en ce qui concerne le football, parce que Naïtan, si nous avons le football, nous avons le Naitan il est clair que ces dernières années-ci, beaucoup d'ASC, associations sportives, parce que le côté culturel, le côté socio-économique, l'activité de développement, c'est laissé en rate. Les football est concentré. Mais je crois que cette année ci exceptionnelle est l'occasion pour que nous diversifier les activités du mouvement naïtan. Parce qu'en ce qui concerne le football, pour pouvoir respecter hein, euh, le protocole sanitaire, ça va être extrêmement difficile. Même dans les grands clubs du monde c'est-à-dire que avant reprendre le championnat mais équipe il a fallu que nous nga des tests chez les joueurs effectifs, les staff technique pour que nous xam exactement la situation sanitaire lañ nekk nous reprendre euh, les championnats mais le nawetaan est-ce que nawetaan Sénégal on a la possibilité pour chaque équipe de faire faire des tests aux joueurs au staff technique aux dirigeants pour nous commencer moi je ne pense pas qu'on ait ces moyens là donc il y a war nañ qui war mais à mon humble avis pour que mu am des activités footballistiques de nawetaan cette année-ci moi je crois que ça va être extrêmement compliqué. très bien euh, yéen ñaar ñëpp ci seen une intervention am na lu ci génn ci loo xam ne mooy pàcc bi nga xam ci a euh, muy est-ce que nawetaan football rek la war a doon dinaa ci dellu si parce que ci ni ngeen posé yéen ñaan ñëpp seen kii dafa mel fekk si ngeen laaj bi nga xam ne moom laa moom laa bëgg a laaj mais xalifa ci contexte bi nii ñu yemagum ci lii mooy ñoom wax nañu ne euh, situation bi ci yan période la leen doon fekk yow li tax ma lay interpeller ci loolu mooy nekkoon nga acteur footballeur d'abord ci nawetaan yi nekk entraîneur équipe nawetaan yu bëri géré nga leen est-ce que concrètement jàpp nga ne ci situation bii ñu toll nii par rapport ak ñoom li ñuy wax est-ce que réellement suñu bëggoon sax football war na mën a am ak lan la waroon a fekk dirigeant bi technicien bi nekk ci période bii nii. waaw pour une bonne équipe de Euh, effectivement Fallou bon damay ñëw ci demande d'ailleurs à Birane que mu ci mu ci insiste à chaque fois qu'il a la parole ci affiliation réaffiliation boobu. ci institut parce que daf ci am ñoo xam ne bañ déggee affiliation réaffiliation dañu yaakaar ne nawetaan mooy am. Mm-hmm. waaw parce que dañuy confondre affaire bi heureusement que leeral na ko leeral na ko léegi mais Fallou dafa bëri ay conséquences trop ci footballu Sénégal su nawetaan amul su football nawetaan football football nawetaan amul dafay am ay conséquences yu yu yu grave laa la wax ni ci dans dans le football sénégalais. pourquoi parce que nawetaan li muy produire ci ay footballeurs yoo xam ne ñoom ñooy jouer la ligue la nationale 2 la division régionale nationale 2 nationale 1 ligue 2 ligue ñu ci bëri fa la ñuy génn loolu moo tax à chaque fois que nawetaan yi commencé gis recruteurs yi mais actuellement nii comme met met Diagne ko waxee léegi président euh, même bu gars yi doon dem sax pour recruter pour xool foo xoolee amutoo fooy xoolee phase nationale gis nga ni mu daan mel léegi tous les recruteurs sont là-bas pour pouvoir avoir euh, des joueurs mais actuellement nii nii conséquences yi mënaguñ ko mesurer d'autant plus que euh, xamuñu fan la ñuy entraîneurs yi xamuñu fu ñuy puiser comme ni ma ko waxee xamuñu fu ñuy puiser pour avoir des joueurs qu'il faut li manquement yi ñu am pour nous dem ñenn ñi nga xam ne dañu toogoon aussi joué wuñu c'est à travers les nawetaan aussi la ñuy amee possibilité wu referaat seen seen seen seen i tànk joué waat amaat amaat dellu à leur meilleur niveau pour mën a démarrer le championnat loolu yëpp mbas mi mbas mi mbas mi mbas na ko. donc euh, ça va être très très très compliqué d'ailleurs on va démarrer même même pour le championnat d'élite di nga gis championnat bu bu terne quoi championnat boo xam ne ni ñu ko bëggee woon euh, euh, rythme doo du amee noonu. Euh, ci loolu mooy nawetaan dafa am ñaar mbir yoo xam ne doon na ko régler pour le joueur et pour les pour les dirigeants pour le joueur doon na compléter seen seen nombre de matchs dans les dans les gens parce que am na joueurs yoo xam ne ay ñaari match ñetti match la ñuy jouer ci saison bi ci nawetaan yi au moins dañu am beaucoup de matchs dans les dans les jambes leneen li mooy euh, li li football bi yore ci joueur au Sénégal club yi mënuñu ko mënuñu ko absorber mënuñu ko absorber donc ñi bëgg football ci nawetaan bi la ñu war a mënoon dem pour football pour faire leur passion su fekkee ne loolu amul impact yooyu nga wax yëpp conséquences yooyu yëpp dina am en plus euh, recruteurs yi équipe yi ci foofu la ñuy jëlee seen seen base équipe bu déwén pour la préparation pour mën a dugg dans le championnat d'élite ma dal ci euh, surtout au niveau de l'ODCAV euh, ñoom dañ dinañ am dinañ am problème ah d'autant plus que

fàtte fàtte bàyyi dañ am xalaatu war ko indi sans pour autant que code part yooyu am parce que code part yooyu du am non cest à li ngay li ngay wax nii am na pàcc bu ma prévoir ci discussion yi ci loolu mais li nga soulever daf may permettre ma laaj ma laaj Birane ak administratif boobu te Maître Diagne wax ko yéen ngeen wax ko mooy loolu mooy permettre mooy wane ne yow ASC bokk nga ba léegi ci suñuy structure mm-hmm. donc c'est n'est pas uniquement pour venir jouer mais c'est pour wane ne mais actuellement est ce que bi ngeen ko est ce que ASC ñu ñu ngi koy ñu parce que dans jàpp ne ASC yu bëri buñ la film. Ah, football lu deful sax est ce que loolu yéen ngi koy prévoir. contexte boobu sax moo on a entamé depuis hier ay tournées de sensibilisation au niveau des des des zones. Mhm. donc on a fait hier l'axe Khombol en prenant deux zones là-bas pour sirax Touba Toul l'axe Ngunjan, Anen et l'axe Kayar l'axe et l'axe pour sensibiliser les, ak wax len aussi ce que le nawetan compte faire en termes d'activité au-delà du sport au-delà du sport am na yeneen i activités yoo xam ni dañ koy def suñ ci sport bi xajee ñu dugal ko ci su ci xajul comme loolu bon y a pas c'est pas la fin du monde parce que lu lu tëj yenn championnat yu mag yi tëj yenn lieu de culture tëj leneen bu empêcher nawetaan mu bañ a jouer aussi il faut que nit ñi xam ni waruñu ko organiser nga sama sama laaj loolu daf may permettre mu dugg ci mhm. ci illay euh, benn waxtaan waaw mais Birane est-ce que yàppuloo ne quelque part vous avez échoué mhm parce que su ngeen tollee ren jii nii ngeen di sensibiliser pour ñooy réaffilier wu pour leur faire comprendre que au-delà du football am na leneen lu ñu war def ça veut dire que tout simplement le nawetaan était surtout au football parce que bu leeroon ci bopp ASC yi te dinaa ci ñëw ci maire Diagne mooy ASC yi seen bopp tamit jàpp nañ ne football rek la bu football amul amuñu benn utilité dans le quartier euh, ni en période de vacances. Oui, loolu man duma ci d'accord ak yow à 100 que ni eh, échoué à combien pour cent. waaw di la ci xaw rejoindre. <laughs> parce que problème de compréhension rek lay doon. Mm-hmm. au niveau des ASC. Mm-hmm. et là aussi moo tax ñu commencé théoriser les ASC de la troisième génération Nous ñu xam ni que actuellement war wax association sportive et culturelle mais dañ ci war a développement encore culturel bi réussir c'est passer au développement c'est dans cette perspective aussi mm. que le président de la République mettre mm. ñu en relation avec ses services pour nous théoriser une ASC un projet et des emplois ay ASC bénéficier wu ci ASC au niveau de la région et 5 au niveau du département de Thiès am ci projet yoo dans le cadre avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, 5 quatre en aviculture et deux lits en boulangerie projet boulangerie moom démarré effectivement c'est vérifiable avec l'ASC ndigal de la zone 7 à le Ce suñu fa donné. mburu ya ñooñu di di di donc le développement am euh, mon problème mhm je suis d'accord hein, il y a énormément de progrès y projet liés aussi effet de effet de effet de bu ASCD mhm. développement moi je dis que euh, depuis longtemps on parle d'associations sportives et culturelles, mhm. le côté sport côté football c'est presque réussi mhm. encore que pour moi c'est le football que vous avez réussi au niveau de des, mhm. Il n'y a pas que le football comme, mhm. comme sport. Mhm. on voit très souvent football, football, football. Alors que je, l'ai interpellé, je l'ai dit à plusieurs responsables, dans les textes, on parle de, de football, au moins, Sur une activité sportive. Collectif au moins. Mais les autres activités sportives, on ne le voit pas sur le terrain. Je suis d'accord, je suis d'accord, Fof. Mais, il faut nous que, si nous sport, si lépp lu football andal, da lay yobale, da lay meud tout à fait kooku mom nañu d'accord ni actuellement lépp lo xamni dang ko bolé ak football muy culture muy benen discipline annexe sur au plan collectif basket handball ak yoy yëpp football bi da leni meud mais ci lolu lañ ni nak daf ci am yenn yo xamni pour mu dox il va falloir que ñi yor yenn fédération yi ak ligue yi ñoom ñoo war di rapproché wu ci nawetaan parce que grenier la est-ce que c'est pas le contraire non Est-ce que c'est pas le nawetaan qui doit se rapprocher des autres pourquoi je dis que ñoom ñoo war di rapproché wu parce que ñoom ñooy bénéficier wu ensuite ci athlète yooyu nga xam ni dañuy jóge foofu ñëw ci ci ñoom boo déggee ma ni ñoom dañ ñu ah, war a ñëw dañu wara ñëw aussi approché wu mooy dañu wara ñëw jàppale ñu ci parce que xëy na mën nañu bañ a xam li basket bi doxee wala règlement basket bi ko organiser il faut quelqu'un qui connaît le basket quelqu'un beneen boo xam ne dafa xam handball wala keneen ku xam volleyball ñooñu ñoom ñoo mën a ñëw. doxal waaw loolu aussi ñaar yëpp ku ci nekk war nga dem sa. waaw loolu loolu aussi boo déggee boo déggee ñu koy wax liñ naan. Euh, les ASC n'ont pas assez de moyens donc et qui trop embrasse mal étreint des fois partie football bi da de di moyens ils ont ko sax ci activité dépenses supplémentaires en retour encadré wuñu ko ba mu am après dañ koy am au plan des des des des des primes ak yooyu dafay xaw très bien euh, baax na dinaa ci dellu si au plan des primes et des récompenses ni ngeen def ba ami ay primes et récompenses pour récompenser les <laughs> équipes de football ba ko defee am les mêmes primes et les récompenses pour les autres <laughs> activités <laughs> Maître Diagne euh, am na loo d'accord, ne ci mais am na loo c'est sous votre responsabilité yéen ASC essayé, parce que tamit à au niveau des quartiers football break sur le plan culturel sur le plan euh, d'autres activités parce que j'aime toujours rappeler que activité de vacances comme activité de vacances là il faut que vacances yi c'est pour les jeunes mais très souvent comme euh, le football wala beaucoup de football de vacances bah, vous avez tout à fait raison en fait d'une part d'accord avec vous. <laughs> mais d'autre part je suis d'accord d'accord vous. Quand xam le Birame dafa wax nous am solo. c'est-à-dire que ce soit au niveau national au niveau international. Le football local, ko. avec, rek mu phagocyté ko. tu vois les même c'est ce qu'ils pratiquent les autres disciplines sportives ils ont des à mes fans qui ont ne ay footballeurs football bi dañuy bëgg football bi. donc football moi, am lu ci nekk loo ni c'est vrai que dans beaucoup de quartiers c'est-à-dire que l'équipe yi bëri nañ libéral wax moo ci nekk gars yi duñu am sax moyen da ngay gis ay équipes yoo xam ils ont même des difficultés à chercher une paire un paire de maillot une paire de maillot du moins pour bu ñuy football yi mun ko def wala à gérer le regroupement. donc ñooñu des fois duñu am les ressources humaines nécessaires pour mun a def yeneen activités yi mais moi je dis que certaines grandes ASC nga xam ne tamit ce sont les grandes les ASC phares de de Thiès comme ASC ASC ah bon mënuñu wax suñu ASC ah, parce que suñu ASC amna ñu ñu ñu fi tout comme ay ASC ay ASC Jaxaaw ASC ASC ASC Sitalami ASC Jàmmagën ASC R100 war nañu nous wu à d'autres activités man j'aime le rappeler c'est-à-dire que mon engagement dans le football dans le nawetaan en fait li ko motivé ce c'était pas le côté football parce que en réalité gain bi demewul noonu mais nous, avons voulu nous servir du football, prendre le prétexte du Naïtan, pour en fait polir davantage l'image que ce quartier populaire populaires. moom la dégagé parce que ce quartier quartier populaire yu quartier, quartier Thiès tout solide tout rek souvent une image négative Ersang, Darussalam, Fall or certes c'est des quartiers difficiles extrêmement difficiles et populaires mais dont les gens sont extrêmement fiers de leurs origines pour que quartier donc nous à Ersan, le prétexte était de nous servir de l'ASA d'affaires. pour dire. il y a le mérite du voilà le mérite du nawetaan aujourd'hui il y a beaucoup partout où tu vas au Sénégal quand tu mm. parles du quartier Ersan, mm. les gens connaissent le quartier mm à travers l'équipe Fagnon du quartier qui est l'ASC defar di dem ay phase nationale qui def ay résultats donc finalement pour demee ci net bi R100 rek ñëpp xam nañ R100 te le football bi nawetaan bi moo ñu permettre donc nous avons voulu prendre le prétexte nawetaan pour nous impliquer davantage dans les activités yi xew ci quartier bi l'ASC s'implique dans le domaine de la santé dans le comité de santé bi on a un représentant qui est là-bas nous avons def dañ ciy def ay démarches di fexe nu ñuy améliorer côté sanitaire bi dans le domaine de, euh, de l'éducation, école, chaque année, l'ASC essaie d'organiser avec les enseignants membres de l'ASC d'autres qui sont vers nous pour créer des activités au niveau de l'école, faire des cours de vacances et des ba ci Covid est on a eu à mené des activités on l'a fait au nom de l'ASC sensibiliser les populations du quartier par rapport aux mesures barrières c'est de def des dons de masque def dons de euh, gel mais ànd ci tamit ak yeneen ASC yi nekk ci koñ ba parce que ñu mel mon grand frère Arona Rachid Ndiaye bu nekk ASC Réveil mu sensibiliser ñu jël l'ASC Réveil Bantous Jamu Doy Diso euh, ba ñëpp. Ramadan ASC yi nekk instant yëpp Daaru Salaam. ñu dajaloo. ànd def ben une grande sensibilisation doon nekk ci Covid bi di donc pour dire tout simplement que euh, c'est euh, pour dire tout simplement que football bi un mm. solo mm. mais ñun football bi prétexte la pour ñun mm. pour ñu mëna impliqué davantage ci ci ci activité au quartier surtout dans le domaine de l'éducation dama koy wax ben grand frère l'autre jour mané ko nawetaan lu mu réussir def ersan c'est quelque chose d'extraordinaire moi je voyais des gosses qui ont ni des fois wax ñi kenn mënul mais gis nga bëgg bu ñu bëgg ASC e bi tax na. foo leen munti fekk. lu ñu nekk di def bu nekkee loo xamante ni baaxul boo ñëwee taxaw ni leen eh, jeune frère. ñoom duñu ñu xoolatuñu li ñu nekkoon dafa yoon dañuy gis président d' ASC e moo président ASC e moo wax li automatiquement dañuy dañuy dañuy dañuy bàyyi. Ah, donc ASC bi li mu ñu permettre ñu régler AR ça on a su régler pas mal de problèmes des gens qui ne se parlaient pas. Mm. l'ASC a réussi à faire de sorte que ces gens là se sont retrouvés des générations et des générations. J'entends ça de la bouche d'un président d'une ASC, mais je suis content. Parce que pour moi, dafa pas malheureusement beaucoup d'ASC ne font pas ça hein. malheureusement ça ne facilite pas la tâche aux dirigeants de des des des cave. ou des ORCAV parce que c'est sûr que nous, bëgg nañu nous. mais une répondants ce sont les ASC Si nous menons des activités comme ça peut-être day gën a yomb à l'image de ce que ce qu'il a dit que R100 def mais très souvent doo dégg ASC yu bëri yuy def loolu aussi force est de reconnaître cela Si euh, fi mu daanele rek laay wax l'idéal l'idéal c'est ça Manam loolu la ñu bëgg mais aujourd'hui, le nawetaan li mu am comme atout de donner, là où il n'y a pas de mosquée là où il n'y a pas d'église ci village yi soo demee da nga fay une ASC mu fédéré ña fa nekk ñëpp loolu aussi. autour du football autour du football rek. mais mais fédéré fédéré na leen ci. autour du football bi nekk ci jàmm pendant benn temps mu jur ci yeneen. Mm. jur na ci tey su ma la waxee jur na ci tey euh, ñoo xam ni tey maye nañu seen doom ñu dem sëy te kañu kañu ko may nawetaan a tax wala tey tudde nañu nit doom. kañu ko may nawetaan tax ñom ñoom ñu xamanté kon ci village yooyu football bi nekk euh, un jour si j'entends que ASC ya fa nekk fédéré na ñëpp ba dajalé seen i tabax fa ben mosquée bu ndaw ça aussi ça peut être un objectif des ASC dans ces milieux reculés ña fa nekk ci football bi dajalé nañ seen tur fexé fexé ba tabax fa ben abri provisoire di jangal xalé yi ci ko ça c'est des choses yo xamné ne suñ leen suñ leen suñ leen euh, sensibiliser ci lolu par rapport comme limu wax ni mm-hmm.

xam nañu nu mu demee moo tax dootuñu ko nangooti dootuñu nangu aussi ASC bi fi ci fi ci ci scission euh, pour li mu wax damay rebondir pour wax ci suñu ay activités yoo xam ni des activités phares su fekkente ni am na rubrique pour loolu mën nañu ko bàyyi waaw non dañ ciy ñëw dañ ciy ñëw parce que au delà de li waroon a am muy football bi amul je sais que vous prévoyez quelque chose pour les nawetaan dañ ciy jël mais dama bëggoon rek ñu xam nga mbir boo laalee fi xaw a sooxe ak fi dox pour ñu def ay jéego day daal pour repréciser waat euh. dégg ci bi ngay daaneel nga ni euh. comme football bi amul waxu ñu ni amna wala amul mm. parce que ñun dañu ni dañuy nek ubi pour suñu ay activité hein, man man ci ni ma gisee affaire bi demee nii xam nga quelque fois ñun suñu problème moy dañuy xaw ki ni nii non c'est clair pour man on n'est pas dans des dispositions yo xamni véritablement football wala non non ñun suñu ko rek moy lan qu'on est des musulmans et on est des croyants. Mais nañu ni non je suis d'accord je suis d'accord je dis que même fait fait day am. mënul hmm. commencer nous fin septembre. bu am. école disposition yi ñu wax ni. xam euh, xam nga ko waral. Hmm. xam waral. Hmm. il est arrivé une année aussi situation bu Melni Amon, de nous il y a quatre ans ou cinq ans de cela dañu nous obligé permettre à nos élèves de faire ces examens examen mais nawetaan aussi ni fonctionner su fait pas que vous êtes d'utilité publique je suis d'accord je suis d'accord ah. je suis d'accord on est d'utilité publique et suñu sommes aussi ci situation bo xam dañuy sous li li fi pour dire a tenté tey wax ni on a décrété que l'activité sport du am loolu mënuñu ko wax parce que dañoo nek ba légui phase situation administrative yéen a ngi envisager football dina ci ñëw léegi nii euh, mais dama bëggoon na laaj Khalifa mhm. moom li tax makoy koy consultant la mais dafa bok ci mirmi. di def nawetaan nek coach entraîneur équipe yu bari yéen entraîneur yi aussi amna lo xamné euh échoué ngeen ko tuuti ci mouvement ci ci ci nawetaan yéen bu ngeen daan dem aussi dans des clubs de nawetaan c' est pour entraîner rek ñu génn fay leen ngeen dem mais sur le plan formation ou éducation au niveau du football dans le quartier vous n' apportez rien du est ce que loolu gisoo ko tamit ci entraîneurs yi nga xam ne dañuy dem dans les dans les équipes de nawetaan non xam nga loolu aussi dafa fàllu dafa sax mënul nekk quoi parce que xam nga il faut faut appeler chat par chat. Ah. parce que tu pas mu nga ne nag da ngay ñëw créer fi un centre de formation. non créer mais au justement l'effectif que tu as dugal seen <laughs> loolu rek nga mën a moom. <laughs> parce que ñoom ñu lay woo ñoom président yi nii ñoom ñu lay woo. gañeel ñu marché bi lañ lay wax. boo gaañoo ñu la pour nga nekk fi naan formel ñu kii yaral ñu kii non wuñ la parce que ñoo la yar <laughs>

cache la forêt c'est l'équipe nationale du Sénégal c'est l'équipe nationale A à part l'équipe nationale A yow gisoo dara ci football Sénégal bi noonu le football au Sénégal même xam naa ne gisuma ko mais même le ministre de la culture manque le koy parce que moom kenn ne wu ko xam mais le ministre de sport il est tout le temps sollicité mais il ban lañ fan lañ koy sollicité le football ba en a qui sont fi mais duñ ko duñ fa dem ils sont obligés faire le football pour mën faire xëcc loolu comme le président l'a dit pour régler les problème c'est un bon prétexte en tout cas. très bon prétexte parce qu'il faut pour régler problème aussi sur le plan financier nous sommes organiser discipline mais football jamais. parce boo waxul football duñ la jox dara. la preuve dafa bokk sax ci ci ci ci ci ci ci cas yi nga xam ne moo tax effectivement ñu arrêté le championnat sénégalais. Hmm. problème d'infrastructure daf ci am. parce que gars yi ils ont ils ont vu que ni mënoon nañu yéegal équipe yi euh, bañ a wàcce kenn nangam mais xool nañu nombre d'équipe bu fi ñëwee tamit actuellement nii ñaari stade moo am Sénégal xam nga ñett ça va être compliqué. xam nañ ko bon donc yooyu problème d'infrastructure Sénégal ci boppam moo nekk ci problème yooyu. ba nga xam ne gars yi bëgg nañu am nañu vision bi ah parce que nawetaan avant ñuy am ce nombre de de club là mais dañ naan cette année fii. Euh, daan nañ def match basket yu neex man ci laa jëkk a xamee galaay benn bon handball da doon am compétition guddi gi da nga daan wër rek di seetaan ay compétition théâtre yi la même chose mais après. léegi dem nañ ba léegi heureusement que léegi problème d'infrastructure wax na ko nombre d'équipe euh, nombre d'équipe wax na ko heureusement léegi kenn doon ñoom daal ñu seetaan mukk mais quand on nag maintenant ASC R100 moom. comme tu l'as dit tout à l'heure euh, exemple la moom nanguwul waaw mais mais exemple parce que c'est une équipe boo xam ne dama koy suivre partout hein. Mm. mais y a pas que le football à R100. Mm-hmm. R100 dama koy top ba jouer un match capital ba ñibbisi. Mm. après quartier bi dugal ci quartier bi. Ah, tout à fait. tu sauras que ça ce n'est pas le football règle règle règle moo réglé derrière les résultats. derrière les résultats. tout à fait parce que la proposer moi personnellement. que équipe absolument euh, une fois proposé que nous dara prouver au niveau l'état parce que il ngeen quartier bi. quartier. donc il va falloir quand même. l'importance de de l'invitation parce que euh, prétexte aussi pour que ñi nek ci kanam mën a tiire ñi nek ci gannaaw nit ñi di. Euh, di xol ce qui se fait ñoom indi lañ indi lañ ñu ko bi tout à fait biñ ko fi indé aussi. wax nañ ko wax nañ ko fi avec le secrétaire général xam wax waxtaan nañu moom ci lolu très bien euh, biram légui nak ñu dugg ci patch bu mujju bi parce que bobu aussi c'est extrêmement important moy au cas où <laughs> comme ni nga waxé dañuy teg point d'interrogation forcément vous avez des activités parce que vous êtes euh, organisme et que ces activités, ça dépasse le football qu'est-ce que vous prévoir pour Rennes dans une situation exceptionnelle qu'est-ce que vous allez faire. prévoir. c'est à la suite de la dématérialisation bi nga mm-hmm. parce que nous ay démission ñu ngi ko daan def ci feuille volante mais daw ñepp gis nañ ni plateforme la ñu tijji doon ci def démission yi ñu ab ben partenaire bu ñu lëkkaloo woon ñu tuddee ko numérique mom moo waroon nekk suñu bras technique légui ça c'est c'est labellisé comme Orange Money comme Wari cave dafa am monnaie électronique am tuddee ko Alal Money alal boobu bi nga xamante ni dem nañu bi mbas mi duggee numérite ni ñoom comme DER moom moo ñu waroon a joxaat benn financement wu deux milliards pour ñu dugal ko ci mais ñoom ak mbas mi du ñu am possibilité mën ko def ci boobu lañu teg partenariat boobu ak waa numérite arrêté ko bind leen ba ñoom ñu nangu ko ñu defaat un partenariat ak beneen euh, institution bu nekk à Diamniadio ci parc industriel bi Sewekhaar ñoom FONGIP garantir ñu ñu def benn projet monétique mu tuddee ko alal loolu lépp pour pour pour régénérer ay fonds la pour xaalis joxalante ak dikkalante. waaw c'est sur le plan économique pour. dugal xaalis c'est sur le plan économique pour. dugal xaalis nañ nañ tëb boobu parce que boobu tamit buñ ci. mais mais mais mais développé wu ma ci lu bari. c'était pour wax parce que sinon ñun tamit da ngeen wara signé ak ñun partenariat dougal ñu xaalis tamit. ñu mun a ñu ñu ñu doog a mën def publicité bi. doog a mën a def. waaw d'accord ko yemale ko d'accord léegi ak yeneen activité yeneen activité bi mooy progrès lañ ko tuddee. moy programme de résilience la scolaire nous signé avec le ministère de l'éducation nationale mhm. parce qu'en son temps il y a quatre ans ou cinq ans de cela lorsque dans n'est nekkoon IEF Thiès ville mhm. ne faisait pas partie mhm. on a signé avec Banque mondiale pour taux de déperdition scolaire bi nga fait un partenariat avec ministère de l'éducation ak banque mondiale mu doonoon partenaire financier bi bi mu paree aussi satisfecit bi mu ñu décerné moo tax aussi bi ñu defaatee projet Paris projet progrès bi muy programme de résilience scolaire bi des classes intermédiaires parce que aujourd'hui classe yi def examen ñu ngi waat ci école yi classe intermédiaire yi pas y a moins d'une semaine yónnee nañ leen yónnee nañ leen déjà wax nañ leen seeni suite kenn ku ci ne xam nga fi fooy def peut-être da ngay xaar sa moyenne mu génn mais élémentaire bi wax nañu moyenne bi passé secondaire bi wax nañu moyenne bi nga xamante ni day passé. si je comprends di ngeen dem jàppale ASC pour ñu organiser donc des cours de vacances au, au niveau des quartiers. et c'est un projet déjà signé en partenariat avec la Banque mondiale ak le ministère de l'éducation nationale. pour def pendant les deux mois yi nga xamanteni de août à euh, septembre. ou bien que seuls les ASC qui seront en règle ñom ñom ngeen di liguel ñi def sen réaffiliation. lolu moo tax. et ce sont les enseignants aussi. yi nekk ci bir nawetaan ñom lañu jël pour ñuy joxe cours yi au niveau des quartiers. pour def ko c'est c'est un projet de 6000 enseignants. chiffré ak yoy yëpp ba nga xamanteni incha su commencer dinañ dellusiwaat aussi ci ci ci ci plateau yi. pour gën ko jooyal xibar yi. su boobaa moom bu ngeen ñëwee ñu ubbil leen bu ngeen bëggee sax def fi cours yi. bi ci des <laughs> bi ci des. <laughs> et ce sera en deux phases en mm. présentiel et en ligne. Mm. parce que bu ñu aussi ci mbass mi. Mm. ONCAV dafa am en partenariat ak pays ubbi ben site en ligne tudé ko ONCAV School. ñu ci doon def ay cours diko jallale joko y a jox élèves yi nga nek da dañu nek en mm. classe d'examen sem 2 BFM et Terminal. très bien benen projet bi c'est avec le ministère Abdou Karim Fofana. Mm. setal sa gox. Mm. dans le cadre des cleaning day. c'est ça dañ ci def ak mom ben programme bo xamni c'est déjà ficelé. et ASC e yi dinañ len jox aussi euh, Wall ci mbir mi seen wall moom mooy projet bu bi yi ngay gis ni yëpp ODCAV du maître d'œuvre bi mm. ñi nga xamanteni ni maître d'œuvre yi dëgg ASC yi alal bi ma lay wax mm. ci 150 points yi li tax ma wax la ko mm. points yi ñu wara lancer lancé ci ni nii l'ASC défar R100 de bokku na ci l'ASC Cité Lamine bokku na ci ASC Jaxaw bokku na ci ASC Garage bokku na ci ak ASC Dialoré bu zone 1A. ñom ñoy 5 ASC yo xamné point point 2200 150 points. vous voulez parler des points de vente. points yi nga xamné mom lañu installer parce que c'est des points yu ay poñ ngay wax. ay points yu ñuy installer <laughs> points yoyu 5 ASC yoyu ma lim noonu. déjà dañuy bok ci phase bi nga xamné moy phase bu njëkk et lepp lu ci war aussi partenaire bi ak banque bi nga xamni mom lañu la ba ci fond de roulement ba ci matériel bi ASC bi mom day ñew rek indi ay nit yo xam ne dañuy doxal pour doon mais euh <laughs> projet yi rafet na mais finalement mhm. est-ce que pandémie bi fi mu nekk nii sax euh, baaxul quelque part parce que defe na ASC dinañ gëna comprendre gëna a liggéey que affaire bi du football rek mën nañu développer beaucoup de choses yo xam sans le football quartier bi war na ko mun a war na ko mun yéen moom xaw nañ leen ci fekk. fi mu nekk dañ leen absolument absolument Fallou euh, parce que ni ko ni ko ni ko ni ko Birane Birane waxee hein, à côté bah, c' vrai que ONCAV mu ngi di def des efforts pour encadrer les ASC à surtout prendre en charge parce que ASC yu bëri amuñu woon ay activités yoo xam ni qui leur permettrait d'avoir euh, des des des rentrées d'argent pour mën a autofinancer seen ay activités ay ASC yu mel ni R100 moom les populations du quartier et de la diaspora nous sommes jël en charge entièrement l'ASC à tout point de vue donc si nous ñëwee en rescousse je crois que le ça va nous permettre de pouvoir nous prendre en charge Nous les remercier qui choix bi nous porter ne porté l'ASC pour pouvoir bénéficier du projet ALAL bi nga si tout se passe bien ça devrait être très bénéfique pour toutes les ASC qui nga xamante ni et comme tu dis hein Covid 19 parce que nous, par exemple, ASML et R100, on avait dans le temps beaucoup de projets qu'on voulait réaliser, mais que malheureusement, faute de temps, ou bien euh, euh, priorisant le football, on ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas le faire. Mais je crois que cette année-ci, ça va nous permettre de, de le faire parce que Moubou le Bougnou de avec les fils du quartier, surtout nous savons que c'est un xam-xam de match qui walu jangale ak ñi seen xam-xam jëm ci wàllu wàllu santé ak ñi seen xam-xam jëm ci wàllu yoon donc ci va euh, ren incha bu fekké ni comme niko ko Birane waxee ñoom confirmé guñu mais ñun dañu japp ni pour beaucoup de facteurs déjà le coach Khalifa wax euh, problème infrastructure day am buñ bëggoon football naytan waaye ku ne xamna na course ba euh, conditions yi ñu fay footballé. On a entendu parler du projet de euh, réhabilitation du stade de Magnan Soumaré. Donc, le euh, stade Ladior, c'est le seul stade fonctionnel au Sénégal. L'équipe nationale, faut les footballer. Donc, je ne pense pas que Gaïd Ningo euh, exclusivement Naïtan pour plusieurs matchs de Naïtan. Donc, tout ça faisant, le Covid à côté, que nous donc on s'était préparé en conséquence pour activité. Donc, il y aura des activités euh, par rapport à l'éducation, comme nous avons fait chaque année, des cours de vacances pour venir renforcer les euh, cours les enseignants ñu en ce qui concerne le poste de santé où l'ASC est constamment présent dans le comité comité de santé il y a beaucoup d'activités que nous prévoyons notre frère Ablaï Fall chaque année il vient indi des lunettes euh, du matériel orthopédique c'est de c'est donc on un projet aussi au quartier mais surtout dans le domaine euh, du droit de la famille parce que ce qu'on a remarqué, c'est que dans les quartiers populaires, souvent les gens n'ont pas cette culture d'aller déclarer les enfants à l'état civil. Donc souvent on constate que les gens qui ont yi l'examen. def examen ñu ni donc ce que personnellement donc on a une campagne pour sensibiliser davantage euh, les parents à aller déclarer les enfants au niveau de l'état civil quand vous allez dans les villages le chef de village il a ce qu'on appelle le carnet de village xalé bu juddu da koy recueillir bu ko parents mais dans les quartiers euh, ce n'est pas le cas Les euh, fa da ngay gis parent chaque jour mu mairie, mais du dem déclaré vous voyez des jeunes des dames qui ne savent pas que quand vous vous pouvez vous marier à la mairie vous pouvez vous marier faire un mariage religieux un mariage traditionnel mais que pour divorcer le divorce ne peut être que judiciaire donc dañuy dem rek ba les procédures donc on veut installer un bureau de droit dugg ci koñ bi une série de conférences par rapport à tout ça pour la population yi euh, surtout par rapport à la délinquance juvénile aussi parce qu'on a vu que de plus en plus des jeunes souvent ils yi indi jëlee leen ci quartier quartiers mel quartier ak ay délinquants yi donc am un travail pour on va profiter de cette année exceptionnelle où l'accent ne sera certainement pas mis sur le football pour mettre l'accent sur ces sur ces choses là déjà, euh, les ressources humaines sont là. Parce que avec ah le grand frère Gibi sociologue, et, les autres. Donc, c'est ce que pour que l'IGE nous dans les trois mois de vacances. Euh, renforcement des cours pour les élèves, euh, des opérations de dépistage et de distribution de matériel médical au niveau du poste de santé, mais information aussi par rapport aux droits de la famille en ce qui concerne les naissances, les mariages, les décès, les divorces les successions pour que nous puissions savoir exactement euh, lan moom mooy nekk seen très bien ça c'est c'est un tout un programme un très bon programme et ni ñu ko qui euh, télévision bi il faut savoir copier tricher les bonnes choses et je pense que euh, Covid bi ni mu ñëw nii ak par exemple nous développer développé ce su ko yenn de yi ont développé la même chose au niveau des quartiers. Ça fait aussi partie des, objectifs du travail de, euh, de l'ORECAP, de l'ORCAP, de l'ONCAP dans sa globalité. il y a un vice-président chargé de la formation qui hein, structure de l'ASC à l'ONCAP. Mais très souvent, cette formation-là aussi, on faute de moyens, mais si le colloque certainement avec l'ASCI, cette situation exceptionnelle, ça peut vous permettre de former le maximum, de faire véhiculer beaucoup de, beaucoup d'informations, aider même les, les, cellules de formation à faire des choses comme ça, parallèles, pour euh, aider un peu les quartiers et les, les villages aussi. Oui, c'est ce que nous avons vraiment fait l'initiative yi nga xamante ñom ñoom def parce que tey ni nii su fekkente ni euh muy ONCAV dañ ko reconnaître d'utilité publique démembrement membres yépp dañu wara aw ci tank yooyu aw ci tank yi nak mom moy def comme li r di def comme nous l'avons dit aussi, aussi euh, vice-président chargé de la formation yi bon euh, peut-être avons un rôle nekkul une formation des cadres au niveau administratif mais il y a un vice-président qui est pour relation avec les institutions ak une ci perspective qui sax la dañ koy en relation avec le ministère de la formation professionnelle pour que nous def ben genre éventail tableau de bord chaque ASC ñu defaral ñu l'ensemble des corps de métier yi nga xamanteni ni dafa ci des jeunes qui xamni en quête de formation bëgg nañu ñu former len en tel en tel en tel en tel ñu jël dossier nous piloter ko defal len formation mais accompagner les lolu aussi déjà au niveau je ne dis pas au niveau national mais au niveau de l'ODCAV de Thiès on a fait un document et on l'a envoyé aussi au niveau de GFA Consulting. Hmm, c'est ben groupe affilié à ZIC. C'est les Allemands qui se trouvent vers euh, la station EDK. Fofle pour que nous aussi nous absorbions absorber jeunes parce que nous devait nous ñuy pour ñu toogloo suñu éviter la la la la kii nu mu tudd sax kii clandestin yi ñu def ak pour que je yi toog xam ni am immigration clandestine bi yooyu yëpp day tax ñu mën ko def peut-être ci innovation yi aussi faté woon nañu bu nawetaan aussi di am wala bu déwénee bu fekkee déwén la war am aussi Inshallah, le nawetaan va jouer sur des licences numérisées

da ngay gis ASC yu mel ni defar r par exemple man sama principe mooy boo au football phase nationale da ngay jugee équipe bi nga nekkoon nga ñëw am licence ASC defar nga dem mais du ñu yóbbaale jour boo xam ne nekkul suñu jour phase yi ñu mës a dem yëpp noonu la ñuy demee mais suñu demee phase nationale yeneen équipe yi jógee ci yeneen dëkk yi ñoom du gëm loolu gëmuñu ni ñun suñu jour rek la ñu indi parce que ñoom ay sélection régionale la ñuy def donc te man ma jàpp ni loolu ONCAV daf ci war a jël ay mesures parce qu'il n'y a aucune gloire à gagner dans la tricherie xam nga ay xale boo leen di tàggat da nga leen di tàggat ci jub ci jub ak ci fair play donc bu ñu defee licence numérisée yooyu ça permettra que loolu noonu tappalee gi nga xamante ni yenn ASC dañ koy def bu ñuy ñëw ay phase nationale wala ay phase régionale yooyu dootul dootul am donc loolu c'est une excellente initiative à saluer et ñu ci féliciter bu baax euh, waa ONCAV ak waa euh, les démembre les autres membres de l'ONCAV yi nga xam ne ñoo jël. waxtu yi xoj nañu xalifa ci yow laay ñëw après yow nga nga wax tugal ci mu tàgguwaale mais damay yem ci ci maître nga tàgguwaale benn yoon euh, gannaaw bu ma la sante gërëm la bu baax a baax nag ci ci teewlu bi le choix n'était pas n'était pas gratuit parce que pour man aussi il faut quelquefois bu ñuy waxtaan ñeneen ñi mun a jàng ci ci waxtaan et je pense que euh, plateau bi gars ñi dinañ comprendre am na lu ci war a a tirer. mais absolument bon ñun damay content ci invitation bi surtout mu nekk invitation venant de vous parce que Fallou Ndaw je crois que ku ne xam na ko Thiès xam lu mu def ci footballu Thiès bi donc soo ma invité loolu moom dama si am cawarte gu mag pour ñëw ci di gërëm aussi coach Khalifa parce que moom it c'est un grand entraîneur waaye Thiès ñëpp xam nañ ko lu may regretter rek mooy musul musul musul coach malgré nos multiples demandes musul coach coach Ersan donc di gërëm bu baax Birane di ko féliciter et à travers lui le président Ousmane Diop le président euh, Baylo Bass le, président Amadou et tous les membres de l'ONCAP, parce que ce n'est pas facile le travail qu'ils sont en train de faire, euh, malgré les critiques, parce que souvent au Sénégal, les gens ne s'intéressent qu'aux trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais les trains qui arrivent à l'heure, moom la qu'ils di leen wax ni liggéey bi pour la jeunesse ils euh, gis nañ ko encourager davantage ils di qu'ils ñaanal yàlla yéene gi ñu am ont na ko yàlla mottali di remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi suivre nous sama beaucoup yi qui ci sport surtout sama gars qui à côté sportif sergent et autres ñu leen di gërëm bu baax euh, di leen sante di leen wax ni bon ñun euh, bi dañ ci jox rek ay amateurs lañ ci suñu koñ gis animé ñu dugg ci mais on l'a pas regretté parce que ça nous a permis de nous faire énormément d'amis Birane je ne connaissais pas c'est à travers le mouvement nawetaan que je l'ai connu et je l'ai pas regretté donc nawetaan dafay boole ay nit te loolu rek moom moo ci am importance bolé gi nga xamante ni moom lay bolé nit ñi donc ñiy wax na nawetaan amul njariñ c'est parce que ñoom dañu comprendre réellement ce que c'est que le mouvement nawetaan mais sinon ils auraient pas réagi donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla jàpp jàmm ci réew mi mbas mi nga xamante ni mu fi nekk yàlla na ko yàlla teggi ñi nga xamante ni yàlla jël ci seen bakkan yàlla na leen yàlla xare àjjana ñuy ñaan yàlla yàlla bu mu jëlaat bakkanu keneen ci mbas mi di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal waa Sénégal jërë merci bien maître Diagne Birane euh, yow aussi amoon naa mbégte euh, l'invitation c'était pas gratuit euh, comme ni nga waxee moi je l'ai connu aussi dans le mouvement Nawetan très engagé très très méthodique mhm. ñu lay sant di la di la gërëm bu baax ma bàyyi la nga tàggatoo waaw jërëjëf Fallou di kontaan trop aussi ci bokk ak ndog yow plateau parce que pratiquement Euh, bousculer nga ñu pour que ñu génne li ñu war a génne yëpp et loolu aussi pour gën a leeral mbir mi la euh, di remercier di ko delloowaat aussi santam moom ak grand bi yëpp ñoom ñu parce que bi ñu ëgsee ñoom ñëpp ñang lañu ñu mujjoon sant mais delloowaat naa leen seen sant ñu santaat kenn ku ci ne kii sant Diagne ki sant Fall parce que Ousmane euh, ni ma koy waxee mooy ñun bu ñu àndee ak si R100 part en phase nationale bu ñu yeggee ñun bu ñu egg excès daanaka ñun ñooy doon vedette ak foofu ah, dangay toog ba ci àgg ñun la bon ci euh, defar fu ñu toll ndax nangam nangam tey lan mooy donc loolu aussi boo amee genre représentant yu mel noonu aussi bu ñu teewee ci plateau bi du ñu mën lu dul wax président bi ni fa ñu teg tànk seen tànk foofu la fi may terminer di ko wax mooy fi mu terminer mooy di ñaan ci dëkk bi jàmm di ñaan ci Sénégal jàmm di ñaan aussi mbas mi nga xam ni moo fi dugg yàlla yamale ko fi ñi fi jot a ñàkk seen bakkan yàlla xare leen àjjana ñi nekk ci hôpitaux yi yàlla may leen wér ba ñu mën a delluwaat ci seen ay kër di wax ni daal euh, on est toujours disposé pour ñëw di indi ak di joyl ay xibaar yoo xam ni dafay jëm ci euh, nawetaan fi may terminer te xalifa doon ko wax toujours mooy ASC e yi nañu xam ni que Euh, la réaffiliation mooy feddali bokk te pour nga mën a bénéficier wu ci projet yi ñu wax nii yépp il faut nga def ko parce que ci biir acte administratif dañoo seppi démission ndax gisaguñu ba léegi ñu ni ubbi nañu transfert walla dara donc la veut dire que xam nañu te du ñu dugal ay ASC ndax réaffiliation juróomi téeméer la ak demande ba ak PV assemblée générale loolu aajowul nit sax mënal nako ko kenn nit rek mënal nako ko ab ASC donc nekkul lo xamni luy luy jël dépense bu bari la mais dafay wane ni ASC bi waxat na ni man bokk naa ci seeni activité parce que tay suñ ko joxone projet ta réaffilié wul do am soo ko toppee bu fekkee def na malversation wala dara. merci bien Birane euh, Khalifa. waaw waaw waaw ah, mais di remercier suñu ñaari invités yi comme ni ma rek comme c'est des c'est des invités de marque di nga xamal ne aussi licence numérisée yooyu ngeen wax noonu day régler problème mu fédération kooku moom dina régler beaucoup de problèmes bon di leen xamal nag ne aussi euh, il était prévu même cette année-ci au niveau nawetaan que euh, précis daf koy jël yëpp en direct waaw mais on avait discuté avec Ousmane Diop mais yàlla ji comme loolu dogal mais di di ñaan rek mu nekk lu statu quo ñu nekkoon ca kaw daaw nekkaat fa comme ça puis dem phase nationale dem ñoo ñooy ainsi de suite nous ñu toppaat lepp comme nous le ko programmé nos caméramans je remercier tous ceux qui sont là. mais euh, comme je euh, j'en profite au-delà même de faire tous ces marches là en direct nous ñu mais retenez que le plateau vous est offert aussi. à chaque fois que vous ne war nañ pour l'intérêt de tout le monde euh, contactez-nous on vous on vous prend à essayer aussi euh, dans vos quartiers, si vous voulez, euh, sur une sorte et couverture, on est prêt, on va accompagner le mouvement Nawetan, accompagner les ASC. E. ci noonu la ñuy euh, leen di jaajëfale bu baax a baax man lu ndaw lu ma je suis euh, aussi sans pour autant ma bañ a wax loolu ci grand xalifa parce que il a eu à nous entraîner ñun niveau de étoile donc aussi loolu def def <laughs> maa <laughs> bu baax sama caméraman yi sama trondo alaaji Fallou Malick eh, di ko jaajëfal bu baax ak sunu soxna si Kumba Fall di leen jaajëfal yéen tamit eh, mbokku téléspectateurs yi ci li ngeen ñu doon teewlu di leen jox dig daje semaine prochaine ci seen beneen émission sport prestige jàmm ak jàmm ba beneen incha Música